baax yi la ñu leen di baaxee tey si aljuma ji yem ak fukki fan ak benn ci weex wi ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën a sa coowal juróom fukki hectare ak juróom yaa ñu joxoon Akon ngir projet ga mu amoon rek mbojjeen di peko Akon City ñagas ñagas daal dina cay biir danañu àddu ci ndombol tànki Papa Amadou ya njiitu réew mi Macky Sall tekki ak la cay taxawaayu kuréel gi di ra Jamra koppar gañu lubal ca boowaa danañu ci ñëw ak kañu di ca dut baaxam di gérant ba turam di Harouna Souma Bougane Gueye Dany àdduna rek ci daal def dem ci njiitu réew mi Macky Sall tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek ngeen taxirlu as lëf bàkk ba jib ma daal leen koy yaatalal. ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz leen jàmm ci xabaar yi njiitu réew mi Macky Sall biral na kay wutu Papa Amadou ca boppi délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes kooke nag du kenn ku dul Abi Sène ma ne woon rek ba fii directrice su fonds de promotion de la formation professionnelle et technique 3FPT kayor kàddu nguur gi di xamle ci ab communiqué de presse ne ci décret numéro bu mars la njiitu réew mi Sall fale maam Abi Sène di fàttali rek ne papa Amadou Sarr euh, ña nga tekki ndombol tànkam àllarba gi weesu gannaaw kaddu yamu biraloon juróom-ñetti fan ci weer wi gannaaw loolu itam kuréelu Jamra nee na jaajëf Macky Sall la mu dàkk papa Amadou Sarr bu deex ni ñu ko Les Échos di xamale Jamra nag rafetlu na ndogal loolee njiitu réew mi Macky Sall daal di jël ministère du commerce amal na ab ndaje waxtaan ak ñay yëngu ci wàllu woowee a fukki fan ci weer wi ca direction commerce intérieur profito na ca nag àdduwaale jëmale ci njëgu denrée alimentaire ya njiitu réew mi Macky Sall xamle woon ni danañu ko wàññi euh, niki noonu jël nañu ci ay ndogal ngir doxal njëkk ya ñu waxoon ca njëlbeen directeur commerce Omar Diallo xamle na ni nguur gi jël na engagement wu génne juróom fukki milliards ngir ñu wàññi lu ci mel ne ceeb diwlin suukar ak yeneen ak yeneen ñenn ci julo yi nag respecté wu ñu la nguur ga jël niki noonu nag directeur commerce biral na ay ndogal di wax ni bépp jula bu jëfee nu dëppook la ñu tëral dañu koy jàppee ni ku def infraction tamanees nañu ko ci tëj uh, woo na rek jëndkat yi tam ci respect wu prix illicite yi di boole commerçant yu ko dul jëfee uh, muy woyal di naan ab stocku ceeb diwlin ak suukar su doy mi ngi ci marché bi uh, tamanees na leen jëriñ lu ëpp juróom benn weer Moustapha Lo ma fa teewal jula yi rafetlu na décision boobee nguur ga jël takk der yu commissariat wu Parcelles Assainies daal dinañuy teg loxo ab réseau trafic de faux de banque bu nu sukkandikoo rek ci sunu ay natango ndawi commissaire ña ngi leen tegee loxo nag ca unité 26 niki talaata gi ah, fekk si ñoom ëpp benn million ak xaaj ci ay billet de banque ak itam drogue wanale nañu leen nag procureur ci alxamisu démb gi ñoom ñaar ñëpp nag ci ñaar fukki at la ñu toll eh, nee nañuy tey mécanicien la ñu ah, mbir mu doy waax la ñuy waxtaanee ca diwaanu Mbàkke ñaari apprenti car nag ñoo yóbbu ab soxna ba ci benn bâtiment bu pareegul daal koy tëddee ci kanam yi doomam ah, takk der yu commissariat urbain bu Mbàkke ñoo leen teg loxo ba jot leen wanaleeg procureur u Jurbel eh, di leen toppee viol collectif sur une personne vulnérable la njëkk a juddu ci l'enquête ba di xam ne ni yuuxu ya doomu ndaw si doon yuuxu ma wala rek nit ña ñeme faa duggul dal den fay bett xabaar yi di ñu yeggee ni ñaari apprenti ya dañu tëkkoo ndaw si ak paaka dugal ko ci bâtiment ba ay ndaw ñoo leen fekk ci kaw jabaru jàmbur joojule ay source di wax tam ne ndaw si àndul ak xelam bu baax Sénégal dafa taamoo mandu ci daan ya ñu bëgg a teg Russie ci seen assemblée générale ba woon ñaari fan ci weeru mars ambassadeur Russie ba ci Ndakaaru taskatu xabaar yi rafetlu na position wu Sénégal di wax ni ñi ngi jaajëfal Macky Sall ma jot a jokkoo ak président Vladimir Poutine ñi ngi rek jaajëfal nguurug Sénégal ci seen mandute ndax yëf yi yombul ñu bari ci réew Afrique nag nee nañu dañoo voté résolution ba waaye yaakaaru ne lu ñu bëgg la ndax dafa jàpp ne rek dañu leen koo defloo Aïssata Tall Sall ma ci àddu nee na position de principe la Sénégal jël ba situation bi exigé woon Sénégal mu voté contre Russie ca conseil des de l'homme ca indépendance loolooy diplomatie de souveraineté Sénégal ay intérêt yi Afrique ñoo ko soxal Alioune Badara Thiam mi ñu gën a xam ci Akon dañu ko joxoon rek cinquante cinq hectares ca Mbodiène ngir mu samp fa projet boobee di Akon City waaye nag dañu biral ne site boobee braquage foncier la liggéey ba nga waroon tàmbali rek weeru octobre atum 2021 ndax loole la ñu bind ci contrat ba dox rek diggante Akon ak ko boobaak léegi nag tegaguñu benn brique libération di ñu ci dolli naan terme contrat ba yëpp dañu ko jalgati ci boor yëpp Ibrahima Niang may coordonnateur local civile nee na eh, ba mu defee pose de la première pierre bac nii kenn gisaatu ko di fàttali rek ne lu tolloo ko juróom-benn milliards yu dollars la ñu biraloon ni rek mooy defar boobu les projets Bougane Gueye Dany mooy àddu ci Bamba Fall di xam ne ni Bamba bunt bu mu fëgg rek ni dafa bëgg a liggéey ak nit ki ñu jël ko te la koy firnde moo dina njiitu réew mi Macky Sall ubbil na ko ay buntam Bougane nag nee na ku votel candidat opposition mooy ne àndul ak Macky Sall bu ñu jëlee suffrage opposition nag yàkkal koko mooy wane ni moom Macky gàtt nee na nag donte danañu ubbil seen i buntu képp ko am mbooloo te bëgg a ñëw ci ñoom waaye nag uh, ku ndobin rey sa maam boo seenee lu ñu la uh, faaw nga daw ndax lu ni mel di amal na leen ay jàngat yu bari uh, Bougane nag nee na Bamba Fall ba muy dem ci mag Macky sàll kii di xalifa Sall la woo ba mu génnee la koy dax di woo moom Bougane yëgal ko ko ba mu ko xamalee ni rek jot na décret donte métti na ko Bougane nee na ñaanal na ko waaye tuuti na ci jox conseil Bamba ndax ba muy politique moom Bougane moo ngi jàng doxoon diggante ngoom Milé ak Lopez ñu fasalul seeni tur fa ñu mujjee nag moo di ne Ngom dafa mbëkk Lopez ci bakkan mu dem jébalu plainte ñeel coup ak blessure volontaire mbir ma nag mi ngi dooree ci woto ba bàyyi Ngom bi gaare ci buntu kër dëkkandoom bi ba nga xam ne nag Lopez ba woon Almadies ay boori min wi fekk woto bi ci buntu këram mu ànd ak mer ba futtu ya mu tegle nag moo woo Ngom moom woo baayam ngir mu ñëw toxal woto ba ba mu wàccee Lopez tàmbali di ko yàq xeteme ca la Ngom mere nag mbëkk ko ci bakkan ba muy nàcc gannaaw juróom-benni fan yu ñu ko téye rek ca kaso ba ngom wanale nañu ko kàttekat bu tribunal des flagrants délits bu ndakaaru ni ki démb moom mi lee dëkk ca Grand Yoff la mu xamle mu ne rek ci fast food yaayam la ne woon ba Lopez di klaxonné ci la woowee papam ci saasi ngir mu toxal woto ba ay simili ci kanam nag mu dégg waa ji di saaga papam te kay waxa bu mu fa tegat ci wotoom ca la ko songe ba muy muccal boppam nag ci ku ya ko Lopez naroon jox ca la ci bakkan Lopez nag Abdoul ak Ngom àttekat ba mujj na tekk ci ndoddi Ngom benn atu kaso bu muy tëdd ba noppi rek fayloo ko 300000 ci sunu koppar liggéeykat ya nekk ca Excaf ci njàkkare la ñu toog jamono jile ba nga xam ne nag entreprise de presse bi dafa nekk ci liquidation judiciaire par jugement numéro bu février emplois directs ak emplois indirects ñu ngi ci xottu gerte li wóor moo di ne daal lu ëpp ñetti junni borom kër ñu ngi ragal ñàkk seen liggéey nañu ko tribune liggéeykat yaa ngay laaj seeni ay payoor yu yemook benn ba fukki weer ak ñett coowal lu bala koppar la ñuy waxtaanee ca banque CBAO Harouna Souma may responsable du département monétique ba defeere nañu ko rek au démb ci alxamis gi da daan lubal compte ba mu dippee rek global carte calpe ngir feesal ay carte prépayem l'observateur di ñu xamal ni koppar gang rek ñu xayma ci lu ëpp ñaar fukki million ak ñeent ci kanamu l'enquêteur ya nag daf ni rek dañu ko sëriñtu doon yeneen ñaaxi carte prépayée ci turu jaxbaatam ak gelam ma nga may nag xale bu jigéen boobee di coxo ma ñetti million ñeel cadeau Moussa Elimane da daan dem Auchan ci turu directeur agence bu Bank of Africa ba nekk Fass Delorme Elimane mi ngi toll rek ci ñeent fukki at ak ñett di woon agent commercial bu CBAO diggante janvier 2021 nag ak janvier 2022 jot na ci amal juróom benn fukki transaction ak ñett ci terminal de paiement électronique ak tampon wu Auchan yamu installé boppam Euh, l'observateur nee na koppar gaa nga toll rek ci 3,7 millions ci sunu koppar Auchan daal di saisir CBAO ci non comptabilisation transaction ya amal euh, gannaaw ab plainte gérant français bu distribution ba euh, sa la ñu teg loxo kii di Eliman lopp ñaari weer ci kanam gannaaw rek ginu pa dina Mbarak Fall mi ñu gën a xam ci Pape Fall ñu fàtte woon ko rek ay bali fetel les échos moo dañu xamal ni mujj nañoo jël néewam ba ca ngoon rek diggante Pérou ba police ba ne woon rek ci frontière ñoo ko faatoon ba nga xamee ni doon na jéem a jéggi États-Unis euh, jaaroon ci yooni suuf bi danañu ko delloo si Sénégal lu yàggul dara mbokki sénégalais nag ya nekk ca Brésil euh, jot nañu dajale huit mille dollars ngir andi ko euh, Ndakaaru kawteef ma naroon am ca diwaanu Géejawaay gën kaa jege rek ca cité na waa jile di wuyoo ci turu Abbas Sow moo doon jéem a faat ñaaxeelam bi ab paaka daal la yoroon Abbas dëkkandoom yaa dox ci digganteem ba ñu ko tegee loxo nag libération di xamale Abbas da leen xamal ni rek soxnaam mësul ñëw ca kër ga muy sëy teg si dafa dégg nit ñi di wax ni ndaw si moo ne bëggul am ak njaboot ki di Abbas tey nañu ko nag ca kaso ba gannaaw judiciaire ba parquet wu Pikine Guédiawaye ubbi ci moom Abbas Omar Pène dal dinay jël prix coup de cœur musique du monde 2022 bu académie Charles Cros bi neex rek at mu jot projet yu baax yi jëm ci wàllu musique ci àdduna bi yépp waykat bi nag moo joxe xabaar wi jaarale ko ci page Facebook am di wax ni rek Euh, mi ngi koy jagleel étudiant sénégalais yëpp ak ya nekk si àdduna bi yëpp rawatina rek euh, ña nekk Layeen jaaree na fa gërëmale consul général du Sénégal ca Layeen euh, si nañu ko teeroo gërëm na itam soxnaam gërëm rakkam di xaritam Omar Wade ak waa super jamono yëpp ba ci naataangoom yu af sud Sénégal ak France tàggat yaram lañu koy ndar képpee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi bile xabaar ba wawaat foofu nag dana neex loola Sénégal ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février gi ñu weesu Ismaïla saax dafa jëlee woon ëpp gaañu gaañu ci seen janoo ba woon ak Manchester United ñu doon lam-laamee rek ndax am dina teew ci jongantey gaynde yi am déet waaye nag entraîneur ba xamle na ni dana bokk ci barrage coupe du monde 2022 ba nga xamee ni dippee nañu ko ñàpp njege ñaale Vladimir Poutine propriétaire u Chelsea ba Roman jël na ndogalu jaay club ba àllarba gi weesu nag la ñu fësal proposition ba owusu bind ni rek mën na ci 3,1 milliards de dollars mu xaw suufe lool ak la ko borom nar a jaayee bu nu sukkandikoo ci Sky Sport fi mu ne nii nag njëg li gën yem ci njaay mi moo di rek bu milliardaire américain bi di Todd Boehly may propriétaire équipe bu Los Angeles Bamba Dieng yaañal na nag njëlbéeni saison wam ci olympique bu Marseille na mu ko defee woon ci Coupe d'Afrique na nag admiration ga mu am ci numéro 10 su gaynde yi ci ay mu naan Sadio Mané joueur bu mag la day liggéey bu baax ci entraînement yi te dañu koy gis si biir a jongante yi daf leen di xelal lu baax yi di leen it jàppale ngir ñu jëm ca kanam Bamba di wéyal naan saajo dafa bëgg Olympique bu Marseille du rate mukk seeni ay jongante bëgg na nag bés mu ñëw daal di jongante foofe ca Olympique bu Marseille Bamba ngi war a féete rek ñaar fukki atam ak ñaar gi di ñëw Mr Sadio Mané mbokk yi li leen andiloon tey ci xabaar fii ci Dakar bés dañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës di jaajëfal kinne si mi fare woon ci son bi di leen jaajëfal yéen itam di leen jox dig daje altine incha allah